salaamaaleykum sama mbokk sénégalais yi. Naby Vision maam lu ma leen tënkal lu gaaw rek. parce que bu ne Macky Sall ni APR ni benn bokk yaakaar ni Amadou Ba des fois da ngeen naan noonu bàyyi Macky Sall kenn mënu ko bàyyi ba léegi mooy chef parti bi te moom mooy chef Amadou Ba am nañu problème amuñu problème suñu yoon nekku ci. xool leen différence présence président Sonko ak ak Amadou Ba Macky Sall démb dëggal na waxi présence Ousmane Sonko Sonko nee dañ ko wax reporter mu ni non sama personne amul solo reporter ñu. Macky Sall sañ na toog ci télé tubaab bi encore nasaraan yi naan ñu buñ ko déggaloon Sonko dina bokk Karim Wade bokk mais Macky Sall kan la yab Sénégalais yi gis ngeen euh, élection législative ni Macky Sall séparé liste yi nit ñii duñu bokk ñii ñooy bokk Macky Sall xeexul ba dernière minute xar tànk tubéyam lu ne mu def ko pour Sonko bañ a bokk moog Amadou Ba manigas ba dernière minute ñu génnee ko ci liste dem ba Sonko nekk kaso mu xam ne Amadou Ba ba mooy band bi gën a yées ci Sénégal mu bëgg Sonko parce que accord bi mu signé Karim Wade leur accord de Conakry ba mu leen waxoon ni naa fi jug Karim su bokkoon ki suma luy tax ba Karim du jël dëkk bi xam nga naa la kay jëlee. Naby Vision Macky dina génn campagne reyante def la tout ba Karim ak Pastef dem deuxième tour waa APR yëpp dem ànd ak Karim. seen libéraux yooyu ñu doon wax dañ fi toog cinquante ans système boobu la bëggoon def système bi cóol. motax Karim wat ba nga genn ci liste moo brouillé piste su Macky Sall yep muy bëgg dé légui léegi mu ni dafa bëgg indi Sonko ci gem bi Sonko ni ko sama personne amul solo fi ngeen di xamé différence Sonko ak Amadou Ba Amadou Ba gëmul luddul nguur ak ma nek ci kanam ak man jaamu len ma Sonko na gëmul luddul sama dëkk na jëm kanam ak ku mënta nek candidat Sonko bu bëggoon nguur day naan Macky Sall d'accord rebattre carte damay bok ta dara kenn du ci mën dara ciolé fi né rek armée bi lay gennat rek rayenté départ dara mais Sonko dafa lank ken xamni kon kaddi Sonko waxon ni liñ ko proposer dafa bañ kon Macky Sall deugal noko demb tok toog ne na amul lu muy regretter Macky Sall soxlo ñu nga regretter dara Sénégal soxlo ñu ko de dossier dina genn ñu war regretter dina regretter kenn par kenn Amadou Ba pour wax leen ni baxul jagut santu yàlla temps wu Ablaye Abdou Diouf mi ngi fi gouvernement Wade ma nga ci bir gouvernement Macky Sall ma nga ca biir indiwul benn solution mosoo leen dégg sax ñu ne Amadou Ba lii sax def na ko wala dara ba koñam ba mu dëkk parcelle sax du la wax ni Amadou Ba def na fa léegi léegi lii kon kooku mooy toog bay naan jox leen ma dëkk bu ngeen ma ko joxee ma defar ko saa waay cin bu naree neex su baxee dafay xëñ de boo naree nekk njiit bu baax sa liggéey ci gouvernement rek ñëpp dañuy xam ne yuu saa waay macha allah mi ngi def lu ne ba nit ñi dañuy yàqam sa nga nekk président mais nga nekk ci gouvernement bu ne nga jaar ci gouvernement bu ne nga langaamu ci kenn mësul la seen gis lu la dégg rek ay affaire njublang la ak sàcc xaliss nga ñew naan jox leen ma dëkk bi wallahi sénégalais yi ak ñi nekk zone rurale yi ñëpp ma ngi leen di ñaan ñu bàyyi par parlo bi ñu waxi par parlo réalité la ni wax kaa ñu wax dëgg rek tek ko fi jub jubal rek. dëkk kenn du ko ci caaxaan. dëkk bi ma nekk ma répété waat ko émirat arab uni Cheikh Zayed ba muy naan day defar émirat di defar émirat ba mu mel nii bi yëpp di fi daw di ñëw kan moo ko fan la jëlee expérience kan kan kan fii dana toog jàngul école jàngul dara toog di lire alxuraanam di xool di étudier le monde di dem ak xelam yoo pare na jub strict nekk un très grand soldat strict ci ay jëfam dëggu boobu moo defar imira lu la waaye wax ci kër àdduna te indil la jub ak dëggu indil la dara wala ñi naan Bassirou Diomaye amul expérience alhamdulilah yaa rabbi alhamdulilah yaa rabbi alhamdulilah yaa rabbi ba amul expérience su sàcc amul expérience ñu rey nit te kenn du ko jugé amul expérience jël ay nervi di dóor di rey nit amul expérience détourné xaalisu askan bi yëpp amul expérience jël tubaab yi jël suñu alal jox ko tubaab yi pare toog ci ginnaaw amul expérience man man la rek man la rek man la rek yaa rabbi alhamdulilah ba joxoo Bassirou Diomaye expérience boobu bu dee li ngeen yor mooy expérience man sëy ñu jox ma Sénégal saxal leen gën dossiers ya fa ne yëpp dana leer loolu moo leen perturbé fi mu nekk nii seen diaboliser leen jaaxal dossiers yi dana génn mënu wax ba du génn dëkk bi day leer jub xoj yéen baykat yi ma am lu ma leen wax tuuti ci bay bi gis ngeen programme bi leen Bassirou Diomaye indil ba wax day jël 10 pour cent ci budget Sénégal in jox investir ko ci baykat yi ci ci bay yooyu Maroc xam nga nan la lan moo tax Maroc di bay dundee ak li ñu am ci habitant ni mu bëri yëpp di bay dundee bay jaay bitim réew partout France foo dem Sénégal foo dem ay ay ay ay produits marocains nga fa xam nga li tax man dama joué Khimisset benn équipe bu nekkoon ci village ba année boobu ñoo jël 2008 ñoo jël deuxième championnat Maroc Khimisset suñu président agriculteur la woon ma laaj ko mais yow xaalis bi ngay yor nii foo koy jëlee mu ni fii gouvernement bi moo may wax de président bi boo yoree say hectare comme li Jomaay waxoon lan moo tax borom tool yi duñ leen jox titre foncier ñu moom seen i tool def ko seen titre foncier mu nekk loo xamante ni ñoom ñoo ko moom mais gouvernement bi noonu da ngay foqati rek di dem Bassirou may fay nen dina len ko jox president bi dafa ni gouvernement Maroc te laaj lo am nga ni ko amna 4 hectares 5 hectares 2 hectares mu laaj la lo bëgg bay nga ni ko mboq la bëgg bay wala dugub mu ni la d'accord mo lay indil machine indil la ji bi ngay ji ni la ay expert ñoo say expert ak ay expert ñu ni mën nga recruter ba 2000 wala 3000 employés parce que liggéey bi dotul arrêté da ngay bay noor bay nerf ba pare boko recruter code du travail ñoy contrôler sen salaire bi nga len wara fay ta chaque weer dang len kay fay mais xam nga do len fay yow mi ñu jox matériel jox le semence yi so ba pare gouvernement da lay rassurer yow da ngay fecc sax da lay bay bul tit bul jaaxle bayal ba mu jeex lépp ñun ñokay jënd ñun gouvernement bi. Maroc kat ya fa nek yëpp lo bay ba jeexal do tit nan kan la kay jaay gouvernement bi mo kay jëndat tasaare ko nag ci dëkk bi li ci des mu jaay ko bitim réew. yow nga commencé waat bayaat. yow loo bay boo bayee trois fois quatre fois ci année bi sax sa yoon nekku ci yow bayal rek ñëwal ni leen mi ngi nii sa yoon nekku ci. nu mu mënta di toll neex naqare ñoom ñoo koy jënd loolu ngeen si ça veut dire yow yaa ngi bay mais xam nga li may bay dama koy jaay. xel bu dal ngay bayee say employé da leen di fay di gérer sa chambre mais ñoom pousse bi ñu lay pousse mooy am nga say hectare machines yi ñoo la koy indil ak semence bi ni la aja bismillah dakal pas bi nga jël say employé dak commencé nak jël règlement comme code du travail employé chaque mois dang leen di fay dañuy am vacances dañuy am euh, pour ay certificat médical yoy yep sen bon li loi bi wax daal ci employé CDI yi nga leen di signé nga commencé nak bum tak nga dem nga ku ci yor tol Maroc ci àll bi fu mu nek nekk lay laaj lan nga bëgg bay nga ni li ñu indi la machine ak semence bi nga tak nombre d'employé nga jël te loo bay ñoom nga koy joxaat gouvernement bi ñoo koy jënd politique boobu lañ def suffisance alimentaire pour am ko comme ndoxu naan il suffit nga jub nekk nit ku dëggu mais jël tubaab yi tëdd nelaw jox leen ma sama yoon nekku ci loolu rek a neex Sénégal bu ñu bëggee liggéey dina nu bay di dundee Sénégal nekk dëkk bi gën a neex ci àdduna bi maa ngi leen di woo yéen ñëpp voté Pastef voté bassiru Diomaye fay en masse gars yi maa ngi leen di bëggee bu baax bu baax a baax a baax nag jaajëf